auzubillahi sami alim min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadri lisani nawwir janani sami amani wa zid barat rasul sutur asmahu man kasiru min assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi siyaare mboktaan bi yëpp ku si nekk turam ak santam di siyaare boo booleem daayira waa kër sëñ Baare yi nga xam ne ñu ngi fii yi ak ñenn ñoom jóge ci eh, seen kanam di si sant eh, Abdou Aziz Guèye nga xam ne nii eh, taxawaayam bi nga xam ne am na ko si màggal gi c'est exemplaire macha allah di ko sant lépp lu mu si def ko defal ndax loolu yëpp li nga xam ne ñu ngi koy def coordination beeg téléphone boog loolu yëpp ñun ñoo ko doon def ginnaaw loolu ñu ngi sant mbooleem sang yi nga xam ne ñoo nañ fii fii. sunu jëwriñ nga xam ne soxna Aji Bakke nekk Marseille ñi nga xam ne nag teew nañ fi nga xam ne teew nañ seen bopp lay wax nee nañ ma dana ma indi beneen yeneen gis ay mbokk ay sunu ñu ngi fi waaw donc euh, xam naa ni soxna solo ni ko maam xam naa dama complété après ñun suñu jëwriñ ñu ngi fi ñu nekk nañ fi ak ñun liggéey bi soxna Aji Bakke nekk Marseille ñoom moo fi nekk donc ñu ngi koy jiital suñu nuyoo ñeneen ñi si des nag sëñ maam Cheikh ñi nga xam ne xam nañ fi xam naa dana ko yëgal bu yàlla am nañu aussi beneen nouvelle maam yoo xam ne bu nee nañu suñu Cheikh Bara Dolly allahu taala dina fi teew mu nekk loo xam ne dina taaral bis bi mu nekk loo xam ne dañ si lool macha allah ni ñu ko ni ñu ko gisee nii nag tawféex la si ñun ndax euh, dañ si gis ak yokkute ndax euh, bi ñu koy door a gis nañ na nga xam ne ak léegi fi nga xam ne nii bis mi mi ngi koy am weekend bii passé marché lañ ko màggale euh, ak coono kii lépp li nga xam ne taalibe bi daj ko mm-hmm. ñëwaat fii tamit ñëwaat nii nekk fii mbooleem mbokk taalibeem ni lépp lu nga xamee ni bëgg la ak liggéey suñu joxoon ñoo koy bokk donc euh, suñu sant moom am na tàmb waaye amul fu mu yàgg euh, sëñ maam Cheikh duñ euh, ko ajul ci ñu koy présenté xam nañ ko fi bis màggal ñu fi màggal yëpp ñoo ko ngi fi nekk nii tamit nekk fii macha allah te tamit ginnaaw ñoom ñi ma waroon jiitu muy suñu imaam di suñu sëñ dama ne dafa nekk moo tax saa daanaka dañ koy fàtte macha allah gisuma sama jëriñ sëñ Ibra Diop eh, sëñ Bass teewal na ko fii ak ñoom sëñ Issa ak sëñ Bataar waaye tamit maa ngi koy jëlee suñu nuyoo bi ndax ma ñëwee dañoo jógee Valence bi ñu ñëwee tamit amaguñu temps daal di saafoon te mbokk taal bi donc ni ñu ko waxee noonu màggalu euh, sëñ Bara nekk noonu nga xam ni man fekkee ni euh, maanaam euh, dong ak ngi fii amul dara loo xam ne ñu ko si wax. loolu maanaam dund sëñ Baara ñi nga xamee nii war nañ ko mën a fàttali war si mën a jàng ak li nga xamee ni taxaw na ko si taxawaayu waa kër ak li nga xamee ni li ñuy wax mos nañ ko wax fii si nga xamee ni màggal goom nii def nañ ko fii tawet yi dund bu nga xamee ni vraiment bu fekkee si ay at la mën na neex ni vraiment lu tuuti la parce que lu am ni weesul 45 ans ak tur fi mu toll ba léegi nii nga xamee ni donc mën nañu wax ni dund bu barkeel la li mu si dund ak li si def yëpp loolu nag moom moo nekk loo lu am solo donc defe naa ni woon diñ si mën a tiire si lu ne defe naa ni am na lu bari lu ñu war a mën a tiire mais barke surtout ak nan la ñuy def ba mën a jëriñu suñu dund donc defe naa ni di si mën daadaan di fàttali loolu dana nekk lu am solo temps bi nag dañuy comme euh, su ëllëg incha allah dana am ñu nga xamee ni dañoo war di xëy delluwaat si tool yi euh, donc moo tax ñu bëggoon bu timisee rek ñu mën a mën a def ñaan ñaanal ñu si balaa boobu xëy na sëñ Cheikh Ba dañuy teew donc ñu mën a commencé si ñi nga xamee ni ñooy mën a com tàmbali conférence bi sëñ Mame Cheikh bu paree euh, daal di jox sa sëñ ji mu barkeelu si si daal di complété euh, sëñ Bousso daal si àddu ay kàddu ñu xool leneen lu nga xamee ni mën nañu ko yokk wala ay question réponse bi nga xam mën nañu si def rek bu si xajee ñu def ko si incha allah taala maa ngi bañ a guddal incha allah di santaat bokkitaan yi yëpp. di leen wax bismillah ñu ngi seen ginnaaw di leen sant euh, sant bu nga xam ne wax dëgg Abdou wax na ko euh, amul fu nga xamee ni maanaam tool tool amul amul sant bi yàlla amul tolluwaay si kuréel yi jàng xasida yi salaatu ala nabi ni ñuy soxna yi teewee si euh, waañ wi loolu yëpp gis nañ ko te mi ngi wax ni ñu ngi leen sant ñoom ñëpp macha allah te képp ku yi tam itam sa bopp nga ko defal ne géeju soow la li si waay soow rek noonu la si si taxe yàlla nañu tase ngërëmal suñ Tuubaa waaw ñu yàgg koo tee ay màggal di màggal macha allah suñu borom defal ñu si ay tawféex defal ñu si lu fonk suñu jot asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu bisimilah suñu maam Cheikh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 walhamdulillahi alladi sabaqat rahmatuhu qudratahu wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi arrahamai baynahum dawi lqulubi rahima wa ala cheikhina xadimi rasulillahi alqail ahmaduna rahmatuna hamiduna niamatuna mahmuduna farhatuna wal juudu mundri deemi waala wa radiyallahu an cheikhina wa jaddina cheikh mahamadul amin almakkiyu alqail ya rabbana inna alwara tadarraun li awliyaika maan yashfaun ilayka ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana fakun lana wajjih lana lutfan wa amnan ya ahad ya man taala lam yakun ahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi sant yàlla jullit yentu sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu mbooloom mépp di jiital suñu kàddu di ñaanal sëñ Sidy Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te di nuyu mbooloo mi yépp ci jiital suñu mbokk yu tedd yu baax yi nga xam ne ñoom lañ bokkal Sëriñ Tuubaa te sëriñ Jili moom suñu si waxtaan Mbàkke di sama rakk toog nii sama wet ndeyjoor kenn du lu présenté ndax daaw macha allah ñoo fi nekkoon seqoon waxtaan wi ñaanoon nañ yàlla yàlla nañ ko yàlla teewale ay at dañu li ko ñaan su borom yàlla nañ yàlla teewale ay yoon nañ park sëriñ Bara ñuy baax sëriñ imam Bousso macha allah nit ku baax moom tamit koo xam ne saa su ne jataay bi ñoo koy bokk moom ko ñaan yàlla ko yàlla dëgëral waaye di jiital di di nuyu ba léegi sëñ Bamba Thiam mi nga xam ne suñu jarbaat la moom mii ngeen gis suñu jarbaat la ndax sëtu sëñ Baara la waaye juróom jigéen sëñ Modou Baara mu sëñ mu taw sëñ Baara moo ko meññ ñu jarbaat ci ñun macha allah di koo xam ne jarbaat bu ñu tiitaloo kon ñu ngi koy beral nuyoo bu baax a baax a baax ci taxawaayam bi nga xam ne mi ngi koy taxawu mbokki taalibe bi sëñ Baara yi fi ñu nekk ah di nuyu bu baax tamit suñu bàjjan bu baax bu nekk ci kaw muy soxna gàdd moom sëñ moom soxna moom yi moom Serigne Touba euh, di waajur di bàjjanti ñoom waaye di waajur ñoom ak Serigne moom Serigne Baara moo ko ñoom ak njaboot muy euh, njaboot gi ñu ngi fi soxna Jamila ñu ngi fi di ko nuyu baax xam naa jomul ñu ngi ci kaw di ñu dégg di nuyu baax suñu mag yu jigéen yi nga xam ñoo fi nekk tamit soxna Soxna Mbàkke moom Serigne Xaadim Awa ak soxna Aji Mbàkke ni ko sëñ Bamba waxee di jëwriñ ci toolu ko sëñ Baara fii ci France waaye fii te Marseille di fa def màggalu sëñ Baara gi depuis 2002 ba léegi ñoo ko fay taxawal euh, ci moom la doon def samedi bële passé yàlla def ci nekkoon di ko taxaw bañ fa jógee tamit démb waxtu heure bi ñu ngi woon Brescia Brescia Ponte Vigo ci kër sëñ Tuubaa ak waxtu démb démb ci heure bi lañ nekkoon di màggal màggalu Mbàkke Kajoor gi di màggal gu rëy goo xam ne sëriñ Cheikh Bara Lahat mii di ñëw ñoo fa bokkoon nekk naa mi ngi ci yoon bi màggal goo xam ne waa Italie kenn desul kër Sëñ Tuubaa lañ ko defee mbooleem région yëpp jël nañ ay kaan ñëw fa wax démb ci heure bi ña nga foon di waxtaane Sëriñ tey alhamdulilah ñu ngi toog jàkkaarloo kanam xar kanam yu yi nga xam ne ñu baree bari miin nañ leen ci jotaay miin nañ ah ñu jàkkaarloo ñoom ngir fas yéene waxtaane Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yi nga xam ne ah, wax naa ne daanaka weeru yëpp ci ak cantam lañ nekk ci ay màggalam lañ nekk ndax màggoon Mbàkke Kajoor bi ñu ko paase yàggul waaye màggal yi France gis ngeen ne bii yaakaar naa mooy bi mooy bi ñu def bi nga xam mooy tëj yaakaar naa màggal yi waaye waa Amérique ko defee Sénégal tamit macha allah rek dañ fay waajal ay journée Serigne Bara mel ne CICES boobu xam dañ ko taxawal lépp ngir wane jàmbaar yi nga xam ne dafa lëmu dafa lëmu te nit ñi war koo xam jamono bi ñu toll xam nañ ko sax waaye gën a dolliwaat xamin woo xam ne dana dëppoog li ñuy xamee nit yàlla xamin wu dëppoog ni ñuy xamee nit yàlla wu wuuteeg loolu xamin bi nga xamee ne waxtaan waxtaankat yu bare bare bare bëri depuis euh, jamono ñu ngi koy waxtaanee euh, ci sax maam lañu baara loolu incha allah rek dana am lu bare bari lu ñu ah, kon nag mbokk yi tey bu ngeen déggee nuyoo boobu ñu nuyoo ci arab ci rahma baatu rahma yooyu ñu tudd ci lenn ci ay xadis ak ay alquran karim ak lenn ci waxi euh, Serigne Touba ni mu waxee ne ahmaduna rahmatuna Serigne Touba mooy wax ne. Eh, ahmaduna kan muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rahmatuna mooy suñu yërmaande niamatuna mooy suñu xéwal farxatuna mooy suñu mbégte noonu ñu ko waxee eh, loolu am na lu muy junj waaye sëriñ Baara mi nga xam ne tudd nañ ay béytam sànq tam ci yaa rabbana yaa rabbana innal wara tadarra'u googu béyit yooyu ñetti béyit lim lëm boo ko xamee dégg maanaam yi da xam ne yërmaande dafay sa dell kon tey thème bi ñu jël fas yéene ko waxtaane Cheikh Mouhamadou Lamine Bara muy géej goo xam ne du jeex mooy Serigne Bara ak Yermande sëriñ baar ak Yermande dañ fas yéene waxtaan Yermande nag baat olof la bu ñu ko waxee jërul di ko tekk ci français jërul di ko tekk ci arabe Yermande daal kenn ku ne xam ne mooy Yermande Yermande nag bu ñu ko waxee day tax dépassé maanaam doomu aadama yi day dépassé doomu aadama yi Yermande doomu aadama waaye day dem ba ci bàyyima yi muy anim animal yi nga xam ne ñu nag ñoom ñu dëkk yërmaande day dañ koy soxlawoo waaye du yem foofu waaye du yem foofu day dem ba nga xam ne maanaam société muy environnement bi environnement bi sax dañoo war a am ci moo xam montagne la moo xam suuf si la wala yëpp yu man doon dañ war a am yërmaande te yooyu yëpp incha allah des na ko leeral ci biir waxtaan yi ñu jëkkanteeg temps bi yërmaande bu ñu ko tuddee yaakaar naa xel yëpp dana dem ci jamono bi ñu toll jamono bi ñu toll muy jamono bu nax bu tëradi bu doywaat boo xam ne képp kuy seetaan ci euh, moo xam média yi la ngay seetaan télévision am na yoo xam ne sax ñoom dañ koy segg muy journal yi waaye ku dem ci réseaux sociaux yi di ko seetaan ci ngay xamee ne ndeke lii yaakaar naa doomu aadama ñemewu ko te pourtant ki koy def